ne jënd leen ba jënd meew yi ñuy ndékkee ay paquet paquet lañ fi wàcce gis nga bañ duggee ci kër gi benn xaritam buñ naan ami yaayam la xaritam fekk nañ fi ndox ceeb dawlin biscuit ndox ñu laa wax partout dans le monde partout Amérique États-Unis Allemagne ku nekk woote ndax peut doo leen sax xam xoolal démb ñu fi ñëw ñëpp xamoo leen ñu jógee ba Thiès petit day wër mbokk ba ay Thiès ñoom Muna Fadiga ñoom Bakary Fadiga imagine toi démb ñett soog am na ndax petit ñett soog ñett kenn ki dañ kaa téye police ville jam dañ ko téye keneen ki xaw ma. d'accord euh, euh, mu mel ne aussi tamit nga ñàkk papa. même pas euh, yàlla rabbi samaawaati ah, moo ñu moom lu ko neex def. def na lu metti mu metti mu metti waaye moo tay waaw kenn mun ci dara. yow mi nekkoon ak Petit dara jotu dafa julli timis daf may tooñee ne ma reetaan loo nga sama papa ba sama papa dee man ku ma xam-xam ne sama digganteeg sama papa mhm. mu ne ma reetaan loo nga sama papa ba sama papa dee day feebar ma koy feccal. lu ne may def naka te petit moom it dama koy reetaanloo ba mu dee dañ doon dàqante mu naan ma jeeg bi may dox di def ay défilé ak affaire yooyu noonu mu naan ma da ngeen a jël seen yoonu bopp mag sama jabaru frère bi Fatou Sow mu ne ñaari doomu ndey yéen a ngi toog ndax démb moom barki démb moo doon sama anniversaire doomu rakk bi Babacar may dàq ji petit pour dóor Babacar mu ne ma tey la anniversaire am xanaa doo ko dóor ñu dàqante nakati petit dafa dem julli timis te jàkk ba ñëw dugg ci néegam dee petit petit kilibam boobu ba ma cay nekk fekk wéeru ma laajal ki mu ne ma waaye man yaay sama yaay kiliba ma ne ko petit déedéet ak sama mag si kanam bi mu ne ma yaa koy tourné petit bëgg sama yaay ne naa leen xam nga lan la koy maman je t'aime baal ma àq <laughs> ma àq maman love you balaa moo dee sama code codam la jël jox ko sama téléphone yaay sama code téléphone bu ko fàtte àdduna dafa gudd tànk petit xam nga ay xaalis bari laa koy dénk wallaahi billaahi wal kitaabi fikki dërëm may jënd yére may jënd dàll may jënd caleçon xamul ñaan xamul da nga koy jox léegi xaalis fin du mois bu ma ko ko joxee war kaa mayaat leneen danaan déedéet du ko jël ndax